toolu foowukaay mbokk yi ñu di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant tey nag ñëw nañ ci dëkk boo xamante ni yaakaar naa ci histoire làmba xale yi ñu ngi wane seen bopp muy Sinja tey ñu ñëw fekk fi Amadou Sow Gilo guyam mu nekk koo xamante ni vraiment mu ngi jàppale xale yi mu ngi leen di taxaw ci lépp lu mu mën su sañoon doomu Sindia saa yu bëree daan bu sañoon dégg titre bii di roi des arènes mu koy dégg fii Sindia mu ngi góorgóorlu ci xale yi mu ngi daj ay coono ci moom li ma metti rek mooy lim dëkkul parcelle ndax ñu mel nii saa su ne dangay rafet na nga am leen ci gox boo xamante ne saa yoo gestoo gis leen balaa amaa ñëw ci ñaari champion yi lan moo la gën a dugal ci xale yi ba saa suñu taxawee rek nga ñëw taxaw seen wet Amadou Sow waaw baax na auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu ñaari waajur di ñaanal xalif généraux yi si senegal yëpp yàlla dëgëral seen taxawaay yàggal leen fi suñu kanam. loolu parce que njëriñ lañu rek pour réew mi njëriñ lañ pour adduna bi. di nuyu waa Sindia yëpp su ma ne sinja nag mooy commune Sindia yëpp en particulier Sindia bi ñu taxaw tey. ah motivation yi man du ma ne si xale yi parce man xale laa. comme ñoom it gis ne développement dama ne c'est inclusive du si benn domaine rek si domaine yëpp la tey kenn ku ne xam na ne le bu njëkk lañ ko doon def pour tàggat yaram mais tey le sport comme on le dit le sport nourrit son homme sport développe le monde le sport développe pays tey gis nañ ne sport tey nit ñaa ngi siy tekki di ci investir di ci jàppale jeunes yu bëri tedd nañ si tey te tey si Sinja fii tey dëkku cosaan la dëkku culture la ñu bëgg sport la ñu en particulier ñu bëgg école de ñu bëgg làmbale it ñun dañu juddu fàttale ko rek gis euh, suñu mag ñi wala suñu papa yi di yëngu si loolu ba ñu ñëw tollu si loolu te mënuñu lu dul bëgg làmb it parce que làmb tey mooy suñu cosaan ñun mën nañ ne yeneen sport yëpp ay sport yoo xam ne tey feneen lañ ko jëlee mu ñëw mais làmb moom cosaanu Sénégal la tey tey ñun mënuñu lu dul tey ñiñ fi am ñu yëngatu si loolu ñu ñëw taxaw seen wet lu luñ leen mënal si jàppale ñu jàppale leen ba tey li ngay wax titre de roi des arènes tey mën na am pourquoi pas parce que am nañ fay champion Guillaume Junior mi champion la mais Bébé Ouz champion la ak yeneen i champion tey donc ñoo ngi leen di ñaanal tey lamb ji ñu jëm la muy déclic ci seen carrière ça veut dire muy buntu bu beegu boo xam ne ay ndami ndam ba roi des arènes topp ci incha allah. kon ni ma déggee mooy xale yi di leen accompagner ba titre roi des arènes si nga dégg ko. non incha allah moom moom amul arrière départ la bu ñu départ ndoo ñoo ngi ñaan ñëpp jàpp si dinañ si jàpp si lu ñu mën boo roi des arènes incha allah suñu champion yi andil ñu ko fii si Sinja incha allah. mbokk yi ñu leen di fàttali ni bébé Ouz da ciy bëre waaye Guillaume Junior tamit aussi da ciy bëre Guillaume Guillaume Junior aussi da ciy bëre Guillaume Junior nag keroog gis ngeen bu mu ñëwee euh, signature contrat ba dam fa def diggante ak Bouka damay njëkkee ci bébé Ouz préparation bi ak nan nga fas yéene ñëw la 14 août fële ci arène nationale waaw d'abord auzu billahi mina sheytaani rajim waaw ginnaaw bu ma sante yàlla julli sama ñaari waa di euh, nuyu waa Sindia yëpp waaw ginnaaw bu ma jullee ci yonent bi wax nag dañ kaa mën a wul waaw mënuñu wax si mbooloo waaye xam nañ bu baax a baax a baax a baax li ñu war te incha allah ñu ngi koy def ñu ngi ci préparation bi ànd sama waa équipe Thiaroye ma kenn ñoo ma indi sama staff pertala ànd ak sama gars yi di nuyu commune Sindia yëpp nag commune Sindia maa ngi nuyu ñëpp comme lu ko suñu papa ji waxee commune Sindia bàyyiwul kenn kii moom du ma ko amul lu ma koy wax mooy suñu per Guéme yi mm. waaw parce que lii yëpp moom moo ko waral mm. lii yëpp moom moo ko waral d' comme si kii bi nga ma waxagum préparation bi. ci bi ci combat bi laa adversaire bi xam nga ko. bi xam naa ko bu baax Boy Ndour. Babacar Ndour xam naa ko bu baax. non eh Babacar Boy Ndour xam naa ko bu baax. Babacar Ndour xam naa ko. Hmm. du baax. loo xam xam naa ne day ruux. day xaar mbër bëre nga bëre. man nag bu xaaree ma bëre bu xaarul damay bëre. xaaral mu bëre. sa gars yi ak bëre Babacar lan la ci gën a mën. Babacar Ndour. lan ci gën a lan la ci gën a mën. Babacar Ndour neen day day day caxabal gars yi xool leen. man kan moo mën a caxabal ci làmb ji. man caxabal lay bëre day xaar nga bëre ko mu jël te tànk caxabal la xam naa bu baax. borom Fatick dama mu xaar dama koy daan incha allah gunge ko ba mbuur laay mën a yem ma bàyyi ko mu konne noonu la demee dama koy gunge ba mbuur mbuur laay yem waaw. nan nga fas yéene ñëw arène nationale ak waa Sinja yëpp topp sa ginnaaw fas yéene laa dooleel nga dugg si stade nan nga fas yéene ñëw. non incha allahu ra rabbi arène nationale dinañ gis lu garaaw. Hmm. billaay walaay doomu Sinja mooy ñëw. noonu la garaaw doomu Sinja dara nag ndax dama ànd ak ñi may ñi jàppale ku ci mel ni sama grand game ñi hmm. wóor na yàlla. lépp moom moo ko def si làmb ji. ba lii nii tey jii nii mën naa ne moom la. kon bu ñuy dem bu ñuy dem nee tamit moom la. di ko ñaanal yàlla. waaw gudd fan rek. parce que li si kanam incha allahu rabbi ala kulli al fu mu teg bëtam ñun ñii di ndaw Sindia dinañ ko fa yóbbu. parce que ñun mu ngi jàppale bu baax a baax. ñaata sortie ci arène. ah bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama première sortie grâce à moom mu ne pourquoi pas suñ ci am mbër champion bu mag dañ doon mbapat rek yem ci mbapat mu ne ñu da war a dugg Ndakaaru wane seen parce que fii nii Petit Côte amul ku ñu xamul. Hmm. fu ñu génn dañ fay wane suñu te incha allahu rabi Ndakaaru am na gan gu rëy. am mi topp sa ginnaaw est que du doon pression parce que yàgg naa yàgg naa bëree ak pression yàgg naa bëree ak mbooloo bi parce que xam ànd ak ñoom yàgg naa bëre ñu toog sama ginnaaw toog xaar ma defar ñibbisi incha allah te Boy Ndour maa ngi koy wax lu mu lu maanaam ak yow di la booy Boy lu mu maanaam lu mu andi moom lu mu andi yow loo andi ah dañu fekk lu tàng jër barke Serigne Babacar di fekk lu tàng jër incha allahu rabbi doomu sunjë bi nga laal te incha allah rabbi bés ba di nga xam ne lépp dëgg la ne nga mbabat ngay def jour ba di nga mbapat di nga xeex. Aïcha Guilhem Junior dugg si. yegg si nii yow moom keroog bi nga ñëwee fële ca wal fajari toj nga sa adversaire bi bu kaa ndaanaan la champion la mun naa bëre mun naa xeex te ku mu bëree say mbokk lëng la ñibbi noo fas yéenee ñëwee. auzu billaahi mina seytaani rajim jërëjëf sëñ Tuuba jërëjëf sëñ Tuuba grand ko mënuma mënuma bëre moom lu tax mënuñu mënuñu bëre mënu tëj dañ bañ ta bëre rek kan moo ko ta bëre man ak moom mënuñoo bëre lu tax mënoo leen bëre ta làmb boole leen waaw làmb mën na boole mais xam nga léewtoo ak bëre bokkul léewtoo la am si bés bi léewtoo <laughs> wala déggu laa ma man sant na ma yàlla ba ma ma rakkat bi may war a njëkk a bëree. Ah. comprendre nga li ma la koy expliquer. Ah. mais barki Serigne Saliou Mbacké koo mënuma bëree moom. mënuñoo bëree mën nañoo léwtoo mais mënuñoo bëree. ñoo ce que xam nga adversaire bi nga jël bu yow xam nga ma yow. yow waaw. maa ngi lay gis rek. yaa ngi maa gis. waaw barki Serigne Saliou dama kaa daan. yàlla dama kaa man dama sant dama sant yàlla rek bi ma amee géem si ma wet mu mën maa jël di ma yóbbu Dakar Dakar ña ngeen a am gan. géem si ñor ak rakam waaw ña ngeen soog a am gan. arène bi la war ubbi mosut a ubbi. non maa ngi arène bi ku ne bëre fa. Balla Gaye ak Modou Lo ak ñëpp nañ fa bëre benn bés mais 14 août la war a ubbi wala déggulaa ma. dégg nga ma. Boucar daa xooli ji jën géero mënu si dara. daa xooli ji jën géero fa si mairie fële mënu si dara tóoj ba am na fa place daa xooli ji jën comme jël. waaw mënu kaa bañ. bugaa nee la. Hmm. li ngay wax nii yëpp bu arbitre le prix bañ tëj barrière yi bu lee la yem ma fii nga yem ko foofu te yow sa wax ji Guilem ragaluma. Hmm. wala yaakaaruma ne bugaa nee la yem ma fii rek nga yem ma. man géeroo la ma dëkkal gis nga baa demee Joal Fadiouth Joal Fadiouth. nga gis gaal mu eb jën ba la diraku. baa liiree si boppi gaal gi géeroo ngaa gis ñu bind si si si boppi gaal gi ñun ay jàmbaar lañ kenn duñu sa xëtal. bugaa la ma ne daa jën géeroo fële comme ay moromam wala li mu la déggu la man jàmbaar la man kenn du ma demee fii ngaa em dóor du ma wax fi ngaa taxaw bëggoon na laa dóor sax si signature ba ma ba ma du karaaw ba ma dóoroon sama ma ma génn si biti du ma xeexaa mais bés ba du dóor man maay def lépp li fa neex maa ngaa def. kooku teg ci gàllaaj xanaa. man maay lébu man maa leen lébu bi. Ousmane Mbengue moo yónni yàkkamte dama yàkkamte. du ah. ma taxawaalu ay Ndakaaru booy Dakar benn booy Dakar di ma yeb. man ma la séeréer la doomi lébu pire njaago di ma yeb. dama kaa daan doole. naka dégg ko dee caméra maa jël moom mu ngi ko seetaan maa ko ma li tax ma jàpp ni amoo sance mooy combat bi weesu ci defet la jóge waaw nee na du delluwaat ci defet yow moom bu arbitre ne prib waaw non dina xeex ak yow xeex waa léegi man mi man mi xamul defet na waaw ah, waaw moom xamul loo man xaw ma defet dama ko miinu sax man dama ànd Amadou Sow Guèyeum la xam ay defet mu ne yow yaa defet yéen a bokk ndey baay man ma daanoo daa juum daanoo gu ma kon xaw ma amul sens <laughs> hmm. daa juum daa juum xam nga xam man ñaari combat la am ñaari victoire bàyyi boole ñaari matuñu deux minutes. nee na nee am na yow nëbb de. gaa yaa ngi gaa yi caméra yaa ngi ñaar la am ñaar la am barki sëñ Sawaat bi ñaar la am. ma waxee Amadou Sow géem la man dama ma bëri arène sax mais nag dama mën a bëri ba wànnet billaay dama amul woon géem rek mais comme am na ma géem nee ña am nee gan. ndax ñaloo te waxuma bu kaa kese de ñoom del daan ñooni ma jël ndaamay. kii mooy jël daan joole ba daan daamay dama ne la kii maraka la la ma ko wax loolu laa def ba eh, ma ne ko bàyyil bés bi da kaa bàyyi maraka la mu gérer njool yi ma gérer ndaamay dañ mën a bëre ba wàññet wala déggu laa ma déggu laa lébu ma waxaaye waxi waa Dakar nag dama ko mën comme man man man maa wax waa Dakar comme ni ñaa waxee du ma complexe lébu la ma géeréw la ma dëkk ba ma mënoon a wax li nga dégg ma wax la li nga dégg mais dama ne la kii waroo wax ak man sax yow bu kaa nga war a waxal bu dégg bu kaa ba ma li ma kaa bu kaa li ma ko li ma ko wax wal fajiri dégg na du mbër nee na dégg ko la nee na dégg ko de ko waa léegi nekk bu bés ba ba xeexee daanu ba bëree daanu wax ko loo comme dégg ko waaw ba xeexee daxaat daanu ba bëree daanu la mu def rek daanu bu kaa da ngaa daanu da ngaa xool ji jën fële comme sa morom yi dégg dégg <laughs> léegi bàyyi nañ la bàyyi nga woote. woo say mbokk su ko defee ñu ñëw ci bébé Ouz. waaw maa ngi woo yu ma doom nday moo tax sonn na si man Issa yu dama kaa beral loxo. barki Serigne Touba Mbacke dama bugg a bugg a ba man ma amee combat daa jiyee te poids lourd la quoi Issa. borom doo galon yi waaw. mais ba ma amee combat dootul nuru nit mbay ndooy Jibi Ndiaye Bada gars yi amatuñu ay jàmm. waa waa poche ba kenn mais Guillaume nag du ma hmm. wax si man ma wax si moom. xama rek. dem nga jooy. non man du góor la ma gaaw maa jooy mais dama man maa mënta sori si moom comme man la wax si géem géem géem. loolu xam nga tudde ko sa mooy loolu. te tuddeewu ma ko ma bopp pour dara. ak di ko mu mel man dama yaakaaroon ne comme nit si àddina bi. barki Serigne Saliou Mbacke man li ma wax rek mooy yàlla ko yàlla fay. Amadou amul mais anu maa sori si moom daal. ok nice. jaajëf woo say mbokk woo say am di jàmm kii lu mu bëgg a wax. kii mooy sama nijaay. waaw salaamaaleykum. nijaay ma nekk di. am na combat kii li mu am du combat. kii ma mbag la. kii moom damay naan kooku ma waroon bëreeg ñun tey kii xale bu ndaw la judoogul. Uh-huh. est-ce que mm. booy bu ndaw la. 99 la judd kon kii judoogul. 99 kii bu semee daalam ñun ñooy nijaayam duñ ko sol. Ah. kon kii judoogul. dañ koy ñaanal yàlla ndam. ak fu mu war a yegg mu yegg fa. ginnaaw lool nag dañuy sant waa Sindia bu baax a baax naam am na loo xamante ne tey jii munu fa taxawee ñun ñoo fay taxawee. Hmm. tey ndax léppam ñun la sant ñu ko dara muy dem di sonni lu dul train entraînement liggéey tëdd nelaw lekk ba suur tëdd nelaw man mi nijaayam mbër la tey jii sama liggéey la laa respecté saa yi nekk ci mais pour le moment ni moom moom a ñor ba taluma bëre ma su ma bërewul sax baax parce que man li ma bëgg mooy champion Sindia yaa ngi dégg euh, roi Sindia laa bëgg li ma naroon doon tey mu simbi ko jox ko moom. déggoo ma de hmm. samay jaaj yëpp a ngi ma teg gisuñu dara bu des bala la ñuy gis lu garaaw. Ah, barki Seydina Mohamed. Ah, ah, yaa ngi dégg di gërëm Amadou Sow Guillaume di gërëm population Sindia di gërëm euh, commune Sindia bu baax a baax parce que ñëpp pare nañ pour jàppale ko. parce que lii culture la boo xamante ne tey jii yàgg nañ ko jooy tey instant bi il temps pour le moment tey grâce à Guillaume mu doxal lu mel nii lu ma yàgg jooy la. te lii lañ gëm lii lañ xam mbapat nañ si àll ba bëgg a dee tey mu ñëw nag génnee lii ñu ñëw jooytu ko si kanamam mu ne ñu carrément dinaa leen defaral école de lutte taxawu leen parce que lii lañ fi am ñu ak ñoom la te incha allah fu mu war a yegg dina fa yegg si kàttanu borom te la laay waxa ah, parce que jàmbaar la dañoo xëy di ñaxtu jusqu'à présent ay bërikat dëgg nag ñoo fi nekk ay champion ñoo ko dar te fu ne nii am na soxla bu rëy fu mu ne nii moomul boppam leer laa lay wax xel bu ndaw la nee nañ moomoo sa bopp ñu bàyyi la nga tàggoo joxe rendez-vous ba le quatorze dinañ xam waa Sindia nan la ñu fas yéene ñëwee arène nationale di la bàyyi nga tàggoo woo say mbokk woo say xarit woo say njëgañ. waaw di ñëwaat di ci di waxaat ci bés bi rek comme tey jii nii wax nañ lépp waaw di woo waa Sinja Sinja moom aw ma ñu dul ñoom. wër na Serigne Babacar waa Caaroy Géej danoo sonn si man sam booy bilaay Diouroup Joal xam nga Joobaas Kisan xam nga ma kenn fépp fu mbokk nekk rek a fu xarit nekk maa ngi lay woo waa Kisan Joobaas xam nga waa Kàmmaa Ngekox waa Mbuur waa Géeréw waa Ndaayaan waa Ñangal Yéeni Kaw ma kenn Kiñaabour xam nga di di sama gaay yëpp nag sama mafia bi suñu nag waa waa waa mbaar bi feenee maa leen di bëgg bu baax a baax a baax sama ñoom garant ñoom galo lii yëpp ñoo ko def waaw Omar Buy sama Ndiaye maa ngi koy bu baax maa ngooy koy di ko woowaat ci làmb ji ñoom père Yankoba bàyyiwuma kenn waa ah. waaw la demee Yankoba ay dara maanaam waa mairie bi yëpp waa mairie bi yëpp incha allahu rabi maa leen di woo maa leen di gërëm maa leen di sant gis naa lu ñu ma jàppale xam nga di siyaarwaat sama grand sama gars yi sama waa écrit ku si mel ni ñoom Boy Lo Boy Niang dañoo sonn si combat bi kootaay gi duñ ma may dara barke Serigne Touba am waa Thiaré Géej di leen bëggee bu baax a baax a baax a baax sama mafia bi caaro yi booy ñoom Aliou ma kenn gunaas géejawaay gi ma yeewoo di woo ñoom tamit ce làmb ji waaw gunaas barke Serigne Babacar dañuy sonn si man tellement yee booy jugal la waroo tëdd sama nijaay mii di ko bëggee moom tamit dafa sonn si bés bi waaw ak bato Sénégal. rendez-vous ngi nii rendez-vous incha allah. dinañ gis lu garaaw booy Ndour. lu maanaam comme nu ko sama garaaw bi waxee sànq rek lu lu mu def day daal. jaajëf incha allah rabbi jërëjëf mbokk yi